place de camp place la bo xamné ni dafa am solo trop ci ville de Thiès té ñu nekk ñun ci projet bo xamné ni projet ville de Thiès la bu yëngatu ci natal dëkk bi ak jàppale way yëngu yi nga xamné ni ñoo gëna jëgé sen gox ñu ci nak association bu association des riverains de la place de Camp te ñun ci suñu wàllu doxalin dañ ne mënuñu def dara te boolewuñ ci population yi wala boog responsabiliser wuñu population yi loolu moo tax ci suñu seetlu même bi ñuy jëmbat xay yi dañoo gis association bi déjà def place bi def ko moomeelu boppam te place bi bokk ci bërëb yi nga xam ne projet bi war na ci yëngu pour delloo ci naataange. defaat ci gàncax pour mu neex a yendoo neex a xool alors bi ñu gisee association boobu ñu ne ah ñiikat kat bu ñu amul woon sax ñun dinañ leen créer ndax ñun ci ni ñuy liggéeyee dañuy sukkandiku ci euh, population bi organiser leen jël nag léegi li nga xam ne nii mooy liggéeyu projet bi àndandoog ñoom doxal ko loolu moo tax ñu ne buñ koy doxal aussi comme ñoom gis nañ leen ñuy yëngu di bale te ñun bu ñu ñëwee aussi il faut ñu bale il faut ñu balaa ñuy def ay fleurs il faut ñu bale il faut ñu def affaire jardinage ñu ne nañu boole kon matériel boo xam ne dana leen yombal ñoom ñuy bale te dina tax ñu nit ñuy liggéey ci affaire jardin loolu moo tax boo gisee jumtukaay yi di nga gis ne ci wàllu nettoiement indi nañ fi ay fourchette mooy lii fourchette indi nañ fi bale cantonnier mooy mooy bi indi nañ fi aussi pelle mu ngi nii ci suuf ak bale court traditionnel am na tamit ay râteau bon loolu lépp nag soo liggéeyee ba pare il faut nga buub moo tax ñu indi brouette bi loolu da leen di jàppale mais bu fekkee nawet ñëw na aussi fii bu amee ñax dañ ko war a béy moo tax ñu boole ci. li nga xam ni mom la maam daan liggéeyee ñu tuddé ko gop bo and ak li li mbi di gop ni ben gop bu and ak ileer lool lepp nak pour que projet bi nga xam ni ville de Thiès ak ville de Solingen bi nek Allemagne ño andando di def di xex tangor ci adina bi ak di delo ci gàncax loolu ci doxalinu projet bobu moo tax ñun ñuy liggéey ak population yi pour que buñ fi jógee projet bi jeex liñ fi def nit ñi mën ko sàmm mën ko doxal àndandoo ci tak aussi ak service technique de la ville bi nga xam directeur bi moy ajara donc loolu moo taxoon ñu ji ah comme indi nañu bagage yi te balaa yàgg bëgg nañoo jublu ci liggéey bi dañuy ñaan yàlla rek li nga xam ne nii nañ ko yàlla àggale ko gis nga raccord bi tamit ci jumtukaay yi la bokk loolu daal laa bëggoon a wax monsieur le maire de la ville de Thiès madame la présidente de l'association ak chère population maa ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, je m'appelle Diène Basti madame Diop man maa ngi dëkk fii euh, ci HLM route de Dakar ñu ngi remercier monsieur le maire de déplacé wu ñëw ba fii du ñu may ay fourni fourniture yi ñu mën a liggéeyee euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax gis nañ ne dañ ko wax rek mu ñëw indi ñu pour ñu mën a continuer suñu liggéey ñu ngi koy sant bu baax di sant tam teewaay yi ñu fi ñëw teew yëpp. dañu amoon benn euh, initiation daal ne comme mbedd bi day faral di tilim te gisuñu ku ñu ko dimbali ñu jug di baleel di baleel suñu bopp di defaral suñu bopp euh, bu ñu jógee den ndake ñoom Thierno gis nañu bi bim ñu gisee nag mu ne ñu dinaa leen di mbooleeg monsieur le maire. mu ñew jappalé leen indi leen matériel bu ngeen mëna da ngeen jël seen initiative bop bop waaw dem ñu ci fekk nak fekk na ñun chaque dimanche wala chaque samedi ñu genn balé koñ bi ba mu set défar ba mu baax lool la def ñu ci fekk geste maire bi ak accompagnement bi ak lim leen andil nañ ci lool di ci bég di ko remercier encore di sante parce que mënon nañ ko wo mu tok fa mu tok rek yónnee te dañuy jël tamit waaw mais ku mu yónni woon daf ñuy doy mais il s'est déplacé ñëw defal ñu li dañ koy sante di ko gëreum di gëreum ñi fi taxaw yépp aussi sant yàlla waaye gërëm leen ñoom itam ndax liggéey bi dañ koo tàmbali woon di ko def ndax xam gu ñu xam ne ñoom ñoo fi dëkk seeni nit a fi ñëw waaye ay gani Cees it ak yeneen waa Cees ñoo fiy jaar ah, ñuy góorgóorlu ci place bi ah, xam aussi ne ay gan yu màgg dañuy faral di fi ñëw tamit ndax fii ah, xayma Cheikh naa Cheikh Saad bu def fi nekk ba nit ñi am sax mébatu bis place bi ah, ñu mën ko ko duppee loolu nit ñi ci war a waxtaan ñi ngi ciy waxtaan euh, kon ñoom bu fekkee ne dëkk nañ fi xam loolu di def lu ñu man pour seetal ko ah ñun lanu warit mooy lépp lu ñu man pour gunge leen ci ñu def ko comme tey jii dañu nekk ci cadre benn projet boo xam ne ñu ngi ko tuddee restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès donc ci biir cadre boobu ñoom liggéey bi ñuy def bokk na ci

ñëpp xam nañu ne ay groupe de bale yaatu nañu ci cees ba euh, lu matagul ñaari at ci ginnaaw matériel bu mel nii bu yaatu séddale woon nañ ci lu takku ci daanaka cinq cent euh, groupement yoo xamante ne am nañu ci biir dëkk bi loolu nag xëy na doo ko joxe benn yoon rek mu yem ci bis bu kàttan mayee ko danañu fexewaat ba renouveler waat action yu mel noonu ngir ah, lii dafay dundalaat citoyenneté xam nga tey ci biir mairie Thiès am nañu une direction de la surveillance urbaine et de la citoyenneté moom benn division boo xam ne division citoyenneté la ñooñu di dugg ci dëkk bi di nemmiku ñu mel ne waa association bi di leen ñaax tamit ci continuer doxee nu mel nii tey ji gis ngeen ne euh, ñaari espace sportif yi ñu doon taxawal benn bi ñoom ci seen boor la nekk kon bokk na ci aussi lu ñu leen di sasaale mooy ñu di ko bàyyi xel di ko wattu ngir bokk na ci luy aménagement cette association composée de citoyennes et de citoyens de Thiès qui depuis euh, vraiment un, un certain temps se mobilise autour de cette place pour essayer de la rendre belle, pour essayer de la rendre propre pour essayer de la rendre beaucoup plus accueillante. Parce que c'est une place en fait qui appartient à tous les Tiesois, mais qui leur appartient à eux d'abord. C'est une place qui accueille justement euh, souvent de, grands leaders religieux euh, qui sont liés à, la tariqa khadria. Alors, euh, donc nous avons tenu donc à venir ici avec les responsables du projet euh, restauration et réhabilitation des écosystèmes de la ville de Thiès que nous avons en partage avec la ville de Zollingen pour remettre ce lot de matériel, mais au-delà donc de cette remise, les encourager, les remercier, les féliciter, les encourager, les encourager et inviter maintenant euh, les citoyens de Thiès qui vivent dans d'autres zones à suivre leur exemple. C'est vrai, nous avons des groupes de ballets qui existe un peu partout dans la ville, que nous avons eu l'occasion euh, d'accompagner en, 2016 euh, en matériel. Euh, maintenant, nous comptons justement, dès que les moyens seront disponibles, renouveler, disons, cette opération, puisque notre conviction profonde est qu'avec la mise en place de la direction de la surveillance urbaine et de la citoyenneté, avec à l'intérieur une division citoyenneté, nous pourrons sensibiliser autant que faire se peut les citoyens à s'approprier ou à se réapproprier leur ville qui est la ville de Jess. Nous lancerons un concours du quartier le plus propre et nous ferons en sorte que les récompenses puissent toucher toutes les catégories vivant dans le quartier. Voilà, quelque chose pour la mosquée, quelque chose pour l'équipe de, football, de handball ou autre, de basket, etc. Quelque chose pour les élèves, quelque chose pour vraiment d'autres catégories de la population qui s'activent dans le quartier et qui pourraient donc ainsi se retrouver, disons, motivés euh, euh, à aller donc dans le sens vraiment de participer à cette initiative citoyenne.